léegi min min acci yaago soirée sénégal he jottega fokk yiman pullala he eh? salamualeykum aleyka salam so gas am na glace wa jam ben ulay ulay yeem glace l'argent ine mi ngi nii jox ma accu rek ku nekk la eh. eh, eh, jox ma jaar moo tax nga jox la aha ay message tax su si Allah on jabi Allah on tan lay Allah on tan Sinimayan. Hey! Mi traversi Sénégal troisième coin trois fois. Nene, tahu saya? Nene. Iya. Ah, oh, Papa, ya, sama yaay moom ma bàyyi am na ne baaba. yow chaque jour sa yaay ngay tàgg. ah tey moom da ngay waxal ak kii moom. kii lu tax bu may génn mu may téye nii man man war naa génn. jàmmaa la. ah min juutil fopp mi nam famille. yow kii xale lu mu ko bay eh, eh, dafa sedd rek ñu sangu kono nelawuñu xam naa li traversé si jon eh, hago taxawal ne wata buusu ar ar mi xaale ar ar rek salaamaaleykum booy galaasi ah ah ko boo yaboo noonu bu sedd la Toute la famille, hein? ok ñu dem foofu. li famille foofu en sonn ko foofu en sonn ko foofu. léegi noonu baax na. waaw da ngay woote téléphone. ñu dem kat loolu du la fekk yaakaar naa. waaw ñu dem. mu la ak action. allo. mon cœur. oui. ci loo nekk nam naa la. tey moom xam la bëgg nga indil ma ci kaw crème glace laa bëgg nga indil ma ko lay xaar nga ma rek papa ginne laa doon waxam ginne c'est mon corps ginne mon kon ah eh subhanallah salaamaaleykum salaamaaleykum lekk <laughs> mi joni ko kine kine traversé ta buntu gallamboy fis commune tara wax docteur bi ñaatala mo wahima 5 million ko jokko kine dugota billahi wallahi ko kerem galas cum farada kerem galas non non c'est pas galas no waɗa kerem galas eh? soɗnama seuley a kaɓuma ya, sama yayi wala tudde kono noon tawi sama kerem galas ne muccu papa na <laughs> non non kenn ngeen faa moo fii. maa fii. waaw maa naa la dégg nga. voilà. salaamaaleykum. ulay. taw. Karim Galassi. Tete Jungo. min bamma communalité troisième âge les de troisième siècle voilà galaas yi kerem cent kerem galaas Yo papa ku la wax bii man waxuma kerem galaas bii de ah ulay yaa xanaa yaa ni ma kerem galaas ah was wa billahi wallahi ya ulay yaa ma wax fii kerem galaas waaw lii mooy sa kerem galaas lii du lii du galaas yi kerem cent franc kerem galaas Apa ya man bëgguma bii de xaaral ma woo kinne mu ah ah, ah ah ah ah l'autre jour bakkat bii du wax bon jaajëful. wallaay. dama jëlee man sama sëb si laa leen di laaj de li ngeen di wax ak li ngeen bokkul de. dama wax ak de. incha allah ima. dama lay doon ba lekk la. ah ah ah fi mu ne nii xam nga kii da lay lekk man lekk gu ma la dama laa fayeeku rek. fayal dama jëlee. ah kii lekk daal nga kii jox cër man tamit dama lay lekk. dama lay lekk. dama lay lekk. fayal wala ma lekk la. Aduna fayal wala xam nga kuy lekk rek ngeen jox te fayal. fayal fayal. imbécile na ngeen di dof dof baal di extension la eh, baal di lii. dama ca. subhanallah. subhanallah. Eh, wallaay. wallaay eh, laa soxla ah. wala ma ko mu génn fii. kenn eh, liggéeyul. tey férié la ah. férié la kon loolu lan la. wuy sama nekk ah. damay dem ah. nga mel ni welbeeg. waaw. eh eh dama doon xeex. xanaa gisoo ma yow. ah an kay. dama doon xeex. Eh, eh. wan wulay. wulay. fi laay toog sax. noo tax ku may seet. eh moo ah, ah! toogal ni yow ngaan baax a wi wara miiras wara miiras waaw eh da ngay soog a ñëw maa ngi bi eh sori ma yow ah ah nga bëgg doom jege la baax

et plus mooy génn sempre que mooy génn ñu dem un génn un deux trois quatre cinq six sept huit lii laa soxla ñu é. ruusal ay jikkoy kenn sàggane defi bii lañu sas moo tax waru ñoo tas nañu booloo ngir mën a nas ñu boole valeur yi ba bem doon benn xam sooga xel ab réew bu demee ba kasa doonatu fa mbañ xamatuma fol la ko réew mi jëm dañ lay toon dugal la si nga toon ñu la si yéen ñi naan ni jamono tëddee la mukk ba dëgg doon fen ndax li ñu joxal lañuy fekk ñoo raw ndax li ñu baaxoon bu dëgg suqaliku woon ci noppi mbaam la dëgg di diréel ku xeeb xal mu lakk sa daay troupe théâtrale banlieusard ñu yegg kon de la waay yàttal teew te ku xeeb sa xànc mu takk sa saay duñu soppaliku di jommalaate waaye ñu ngi seen kaw

te ku yónni sa xalaat sa jëfandiku tarxiis nen bu tajul la mu lanc ana njariñam la mu denc jën ba ca àll ba buñ ca rootiwul doo ca naan ndaali tëju ci kër gi dama ndaali jiitu ndaali ci kër gi doo ci naan action ndaali ci kër gi ah ndaali ci ci kër gi bu tëjuwul doo ci naan. teen ba ca àll ba buñ jox la nga naan. taxaw ba pare bàyyi nguñu taxaw ngeen tolloog ñoom attention. attention. confiance. kon confiance. ay. waa comme ni ma koy waxee rek bu jeexee rek jeex na waaye bu neexee rek neex na te lu neex moom saa su ne dañaa war di continuer rek muy neex tey nag damaa kontaan ndax damaa ñëw sama biir mbokk am fierté kontaan bég amul luma ma wu ndax man damaa gëm répétition damaa gëm artiste boo xamante ne da ngay gëm répétition te ñi ma fi fekk muy xale yi macha allah la cat sama chat, ak sama catu morom. yow nag daa am lu ma la bëgg a laaj ah affaire yi garaaw na de li lan la ni tamit ndànk méttiwul de. waaw ah, mooy li ma waxoon yaakaar naa bi ñu arko ma ne ñun ñu suñu suñu ruq mën a kan rek ngir laaj suñu bopp ñu na kan nit ginnaaw bi nga juddoo da ngay laaj sa bopp yaay kan. ñaari góor ñoo la sukk jur nga nga màgg ñetteel leen dafa am ay valeurs yu ñuy xaar ci yow te valeurs yi ci ñun lañ koy xaaree mooy ñu ne artistes yi ndax ñu wax artiste dafa am yeneen yoo war a aar ay tiis la te tiis yi boo ko bëggee aar da ngay dem làqarti yi mooy valeurs yi ñëwoon ko population bi ñu jàngee ci yow banlieusard mu ngi ci banlieue bi démb laaj nañu ko bis bu demee ba banlieue bi innové am beneen bët la lañ koy woowee ñu woowee ko banlieue bu baax tamit tur bi tamit nekk ñu ñu changé tur bi mom tamit mu jël bon lieu bi rek parce que tamit ah, am na ñoo xam ne fi ñuy considérer ñu dëkk ci banlieue bi mooy nekkuñu ay ndaw yu conscient wala amuñu benn maturité bi wala yooyu mais or que ne tey <clears throat> waxuma sax banlieue bi mais nit ba nga juddoo rek nekk nit rek nga war xam ne am na lu lay xaar ci àdduna loolu mooy dund moom mooy nekk ci ñun loolu tamit aussi mooy ñëw ci ñun mooy li may wax ñun fii ay xale ñoo fépp mais sant yàlla ñëpp sax ay xale lañ laa wax mais yonent bi mission am aussi ñett ñoo ko dox muy jigéen ak surgam ak xale te fii ay surgaa ne ak ay jigéen ak ay xale kon yooyu daje na fi sant yàlla la ñu porté benn mission boo xam ne yombul bëri na compagnie ñoo xam ne ñu ngi ci ci banlieue bi nekk Sénégal sax ñëpp ñu ngi liggéey mais la ma wax sànq rek yàlla yàlla taxawu ñëpp yàlla defal leen ndam ci barke yonent bi liggéey bi yombul mais ñu ngi jéemantu man xam nga lan moo ma jaaxal damaa dégg sànq ci biir wax am ku wax ci xale yi ba ne ñu ngi ci seen kaw waaye yéen tamit lii mbaa jàmm la waaw mais ñu ngi seen kaw bi métier boo gis exemple tey Youssou Ndour moom mooy moom mooy grand bi fii tey exemple ñu ngi sañ tudd ci way moom mooy roi bi waale mu ngi mu ngi ci kawam moom da koy sóoraal da koy bàyyi xel ñu tamit compagnie nekk fi yëpp ñooy suñu Youssou Ndour waaye ñun ñooy waale cum du neex man bëgg naa lii ci xale tàcc leen loolu dafa neex lii dafa leer dafa am question bu des wala amul bu des dama bëgg rek nga wax li nekk ci yow rek benn daal moo ma dese waaw waaw lii la àdduna amul solo ma ko waxul du ma gor mooy surtout arcos national la engagé muy pas sais ak ñom lay ñëpp ñu ñu je ne sais pas fu ñuy jaar ba tey ci théâtre ci Sénégal ku dul artiste comédien du def moy téléfilm ñu fexé xex ah. ñom ño xam fu jaar man parce que aw xam-xam bi mais ah. proposition la bu may joxé mooy ñu fexé ba téléfilm yi daw tay wala cinéma yi def ak mm. ku dul artiste comédien bi du def parce que li tax moy dafa dem ba ñen ñi foog suñu métier bi métier la ñenn ñi tey ñun ñu ciy tarbi ne ci suuf bi fii di xëy di gont suñu waa kër yi ñu yàq lu ne am na ñoo xam ne fee la ñu tëdd di nelaw kenn ki journaliste la boo moytuwul am na salaire mais faa mu ñëw buuxante ak ñun tey la ma ca waroon lekk moom moo koy lekk te fii casting boo fi jël koo fi jël ba tourneloo ko nga jàpp ne mën a kenn la wala moo xam lu mu munti doon soo ñëwee biir Arcos wala nga am ci compagnie yi nga def casting nga fekk ku ko fa dàq parce que métier am la balaa laa jooyee nag bëgg a jàpp loolu moom maa ko wax man balaa laa jooyee bëgg a jàpp nga dem ci tournage boo xamante ne da ngay ñëw toog ñu dem xool benn nit rek ñëw indi ko mu ñëw ci tournage bi ak yow mi nga xamante ne comédienne nga nga répété nga mbapat nga nga ñëw ci terrain bi ànd ak moom xoolal boo leen bokkee yéen ñaar séquence da ngay mer ba da ngay bëgg a jooy parce que coupé bu dul jeex la ñuy dëkkee di leen forcer coupé coupé on démarre collé coupé collé coupé lañ dëkkee ak ñoom. xam nga loolu ko indi xam nga loolu ko indi. promotion canapé la c'est-à-dire ñun ñi am xam-xam. ñooy profité di wax jigéen gi kaay ma taal la kaay ma wax la yaay kan ba ma toppee ma siiwal la. ku jigéen kenn aussi gàtt xel mais bu yemoon ñi nga xam ne la ñu ngi ci base bi fii ñu di leen former amul ku leen mën a euh, fëkk ba yóbbu leen parce que ñoom caméra tiitalu leen wala dara jaaxalu leen muy benn deuxième chose bi mooy bu yàggee fi aar bi di jëm dootul baax parce que beauté la ñuy dem di chercher te yàlla bind na ko ñaaw kon nañ feeñal ñu ñaaw ñi yàlla bind ñu ñàkk dañ fee ñu ñàkk ñi nekkul am am kase la ñuy dundee nit dund na ba dee ci ñàkk lay dund nit dund na ba dee ci ñaaw lay dee

ñi ciy siw nekkuñu ay théâtre kat dañuy abbi ay ñoo xam ni ay soi-disant artiste lañ tuddee quoi ñu ñëw xaalis lañ ci gagné dem seen yoon bàyyi fi nga xam ni dañuy sonn di tar yu tar bi te duñ ci gagné dara loolu nag bon il faut ñu trouver solution quoi waaw xaw nag comme di ànda rek comme di lancer de ñu lancer de défi comme ñu ne ci kaw ñu fexe ba loolu ñu éviter ko quoi te jël ñi ñuy répété ci ah ci ci ci tur bi di sonn ñu fexee feeñ leen ci télé bi ñu am ci dara quoi pour man loolu daal laa ci wax quoi c'est important deug la sama doom baay li wax deug la da ngay gis ku répété ay ati ati ati at seen wa kër naan la yow kañ ngay feeñ yow kañ ngay jënd saako ceeb yow kan ngay jënd diwlin wax ñu bo né ma ngi dem répétition tax dañ lay jéppi noonu li aada wax rek deug la kenn ku ci nekk na nga dem ci sa métier buñ ko défé rek réew mi toj deug du neex lu sa dañé mo wax na sant leen rek parce que bobu lay yéen fi ñew ya bon du ma perdre temps sax boo nekk ak ñun tok xam nga ku la fek nga tok suusu si nii day xam ni ar rek moko jaar jar oui bu ko defee di leen ñaan encore une fois seen site bi yàlla na jëm ca kanam banlieusards nag bon ay xale lañ rek boo gisee ñi ay xale ka fi toog bëgg nañ nag moo fi ni ñuy egg ñu egg fa te incha allah dañ fegg te yaakaar naa am nañ gëm-gëm boobu quoi sant leen bu baax gërëm leen bu baax encore une fois merci beaucoup. comme ni ma koy waxee rek tey nag fii laa ñëwoon turu banlieusards jeex na jeex na neex na trop wax dëgg yàlla man sama xol sedd na fee ma toog moom am naa yëg-yëg wax dëgg yàlla xale yi li ñu def neex na trop kenn ko képp koo xamante ne yaa ngi ci troupe bi yàlla na nga dem ba yëg sa bopp ci aar bi li nga bëgg ci aar bi yàlla na la ko yàlla defal ma di leen di wax na nag maa ngi leen di tàggu nag ba beneen yoon waaye nag sama site bu leen ko fàtte de RTV référence ñàkk cee abonné erreur la ndax man jéegu YouTube bi damay def defkat laa comme ni ko ñi am aada waxee maa ngi ci seen kaw na ngeen préparé yéen tamit maa ngi ci seen kaw te bu ma ñëwee doole laay ñëwee laf cat allah kon nag ba beneen yoon rek. Banlieue dana jiitu dana mas jiitu ah dana jiitu wooy dana jiitu. Banlieue dana jitu, dana mas dana jitu. suñu mag la moom su bëggee jiitu ah dafay jiitu wooy dana jiitu dana masa jiitu njaga ji suñu prési yow soo bëggee jiitu ah di nga jiitu